jërëjëf mbokk bu cent 221 people ñu ngi nuyu ñëpp di char ñëpp ca tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam yaatal ci waaye xew-xewu jamono dinañ ci waxtaan niñ koy defee saa su nekk ah, gannaaw ba ma dalalee sëñ bi dinaa ko laaj lépp loo xam ne bokk na ci actualité mu ne ma lii di politique dinaa la ci wax cinquième président ki nga xam ne namm na koo jël ci réew mi donte nit ñi dañuy raay dinaa ci duut baaraam waaye match yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal mu ngi jongante des ci kan bi ba léegi dinaa la wax na muy mujjee comme que jëloon nañ ko ndax dinañ ko jëlaat wala dañuy finaalu euh, àgg ci dinañ ci yaatal maak moom lépp lu di actualité dinañ ko waxtaan jëmale ko ci xew réew mi ki dalal tey moo di docteur Mouhamadou Watt damay def leen bàyyi la nga nuyoog mbokk askan wi nga xam ne ñu ngi lay topp saa nekk ci 221 people waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu maa ngi lay fay di la dellu nuyu di la kontaane di la jërëjëfal di la ñaanal yàlla jàmm maslaa tawfiix di nuyu sa àndaale di nuyu mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñooñuy déglu mm-hmm. ci biir réew meeg biti réew di leen dalal jàmm ci kër gi di leen naan bismillah tarkal jërëjëf docteur ah, lii di seet ak listixaar mënuñ la ko ñàkk laaj ndax ah, saa buñ ci dalalee kilifa yi dañ ciy waxtaan yow nag am na seet boo xam ne yaa ngi koy def donte seet dafa bëri te yaatu waaye nag seet am na seet boo xam ne dañ la koy bàkkee ci laa bëgg ñu dellusiwaat nga waxal ñu li nga xam ne yaa ngi ciy jëflanteeg jaam yàlla yi waaw bismillahi abtadi duaayi wa mahrabi ilayhi waltijaayi bala ñu ñëw ci wàllu seet gi ñu wax bismillahi arrahmaani rahim mhm. moom la ñu tàmbalee waxtaan yi ñu ubbee ko mhm. eh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa alihi mhm. allahuma anta samadu alladi lam yasmadu ilayhi kulli haal wa anta almashaaribu ilayhi kulli maana allahuma ya azimu shaanuhu برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة العين bu ko defee ñaan yàlla mi nga xam ni laa yasuuqul xayr illa mm. allah wala yasrifu suu illa allah ah. ngëneel gu ne mm. laa yafidul xayr illa anhu lu baax lu ne ca moom lay bàyyeekoo. Hmm. ñu wax at mim lana nuurana waxfir lana innaka ala kulli shay'in qadir di dellu sant yàlla alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tutimmu saalihaat hmm. yàlla bi nga xam ne ci ngëneelam la mbaax yëpp di mag yàlla defal ñu émission bi muy émission bu mbaax hmm. émission yërmande émission tawféex ak émission wuy njëriñ askan wi biir ak biti surtout waa jasuraa nga xam ni dama leen téye sama biir xol ñu téye ma ci seen biir xol fa tabaarakallahu nga xam ne ñoom dañ ciy jëflanteeg ñun. Mhm. ndax bu leen sëñ wat seetalu leen. Mhm. képp ku leen mën a seetal ak ku mu mën doon muy seet bu mu mën bu dul seetu jinne mhm. sëñ wat daal moo leen ci doy. Ah. ndax fu ne jaar nañ fa. waaye luñ leen wax luy rëdd baaram lay doon te du luy deñ. ndax jaare nañ ci ñoom ci foo xam ni sëñ Cheikh. du la mën a nettali ci écran. Ah. ndax nit woo nañ ba tey yi qarin muy mhm. àndandoo boo xam ne bépp doomu aadama am na ko mhm. te kenn mënu koy weddi mhm. moo ñuy xamal li nekk ci yow ñu wax la balan la yéem téléphone ban duggee ci wàllu ram li nag kooku dañuy tomb sa sa tur jur bu jigéen ak santam seetal la seetantal la wax la lu dul deñ amaana bu amee tegtal boo xam ne boo ko defee yàlla jàppandil say mbir ñu wax la bu taxalee sarax ñu wax la bu aajo ñaan def la ci ñaan seede yàlla tërkal aca ñëwal ma ci wàllu mariage ak nopp mariage duñ ko waxee xale dina jëm ci ñu bëgg a euh, takkante maanaam sëy ba ci wàllu am doom waaye noob it bokk na ci li nga xam ne day boole am na ñoo xam ne dañuy noob nit pour mën leen a boole ba ñu mën a sëy waaw wàllu mariage mhm. da ci am ay xeet ci wàllu noob bi ak wàllu boole mhm. ndax jàmmu dafa am noob dafa am jam mhm. boole la rek waaye booy boole na nga boole fil xayr waaye jam u fil nikaax dafa am mooy maanaam gàgganti sëy ndax sëy léeg le dafay tag da ngay gis ñaar ñu bëggante yàgg lool ba ñëpp ràññee ni ñaar ñiy bëggante nañ ah. waaye kenn du xam lu waral ba tey déggun alxayr ndax mbir mi dafay am maani hmm. muy empêchement ah. kooku nag sëñ wat da koy dindi ci kurus gi ndax sëy du xëy naa bëgg naa jabar rek am naa ko hmm. ah, ah déedéet faaw yàlla dogal ndax wama tashaa'uuna mënooy hmm. soob waaw wama tashaa'uuna illaa yasha allah mënooy soob mën soob ndeem soob na suñu borom waaye buñ ci jaaree dana soob yàlla te kadaan bañ. Mhm. moo lay woo ne la kaay jël si sam soxna. kooku mu jar ban la sëñ Cheikh. waaw buñ ne mu jar ban mhm. mooy lu ñu def defaat la. waaw loolu. Mhm. dañ koo def defaat. waaw ndax sëy yiñ takk. dafa bari te dañ cee sawar ndax jaamu yàlla la ci ñun. waaw mu am loo xam ne nag da ngay bëgg nit mu bañ la. loolee moom <clears throat> di ci bari. waaw da nga ciy rek. mu jublu la ndax dafay am àndandoo yoo xam ne ñoo koy empêché. waaye benn doomu aadama bañ doomu aadama lu mooy jikku la yàlla digle nga mën a bañ nit hmm. day yore jikku joo xam ne neexu la waaw nga bañ ko ci jikku woowu la waaye lu mooy loolu moom hmm. ñëpp mën nañ defante hmm. ci wàllu mbëggeel xubban lillaahi ci fillaahi walillaahi taala masha yàlla bu ko defee nag loolu am nañ ci ay yoon yoo xam ne buñ ko defee ke lay wor wala ka nga xam ne dafa ànd ak way juram ñu teg la dil kooku moom dana doon sam soxna. <laughs> Mhm. dana fanaan sa ginnaaw. <laughs> ci ci lew lay doon kookooy lonk gi. waaw waaw mu am yeneen xeetu noot yoo xam ni. bëri na ci daal ay façon. mu gën la ci ñëwal incha allah. atia mm. ñëwal ma am lante dee da ci am wàll fay na loo xam ne buñ la ko waxee nga ëf ko ci ndox nga gàllax ndikoo ko yàbbi ko ci suuf. Mhm. wax jooju. waaw yas bir. Mhm. kalturaab dafay noppi ni suuf noppee suuf. lépp lan ko yenn mm-hmm. waaye est-ce que dégg nga mu masa a onk mm-hmm. <laughs> déedéet xanaa yàlla ne ko yëngatul mu yëngatu lépp màbb mm-hmm. waaye suuf moom masta ne lañ ma yenn diis na mosu koy wax ma nga na tekk di jaamu yàlla wax joojo moom kenn dootu koy tudd ah, mu am yeneen xeetu yoo xam ni fay wax ah, yoo xam ne buñ ko defee mhm. coow loolu lu mu garaaw garaaw garaaw mhm. dafay nax saay ah, waaw bari aana ñoo xam ne jaar nañ ceeg ñoom mhm. waaye nag dañuy bëgg nit ñi tam di def li yàlla bëgg ak yonent bi li mu bëgg te nekk ci dëgg newee rek incha <laughs> allah da la dimbalee rek ndax ndimbal na ca fekk loxol borom dalay jàppandi te day yomb itam mhm. loolu am na ci xeetu fay waxi moom ci wàllu maanaam jubóole ak fay mer mhm. ba tey fay wax ak fay mer dafa bokk ñoo la koy tojal mhm. ndax di nga gis way jur mere doomam ba dut mën a jaakaarloog moom wala doom mere xaritam wala nit mere nit ba du bëgg sax gis kooke loolu am na loo xam ne ko defee rek waaw dana wàcc ba dana la jaaxal ba da ne ba xam diwa nekk noonu ndax lislaam dafa mm-hmm. tere jullit mm-hmm. ñu merantoo ba duñ tuddante ñetti fan yu tegaloo mm-hmm. kooku moom boo ko defee rek ah. daanaka yaa ngi bëgg génn lislaam macha allah ndax lislaam bëggul loolu mu ngi a acca gars it niñ koy namme ci yow saa su nekk nga koy jëflanteek ñoom mu di wàllum këyit bëgg naa di jël siwaat yi li dëxañoo ci këyit nag bëri na ndax waaw wàllu këyit moom sëñ Cheikh lu ñuy làqarti lay doon waaw xaw ma ndax mës ngay dégg làqarti xam nga tubaab ak fa mu toog ca birom ba mhm. ak ca préfecture ba waaw ay policier wër ko bañ fees del mhm. nga bëgg faa jële am kayit sëñ bi faaw ñu jaar faa kurus gi làqarti ko mhm. ñoom ñoo lay woo ne la kaay jël sam kayit bu dee amoon ñoo lay woo jox la rendez-vous muy wàllu visa muy passeport muy ambassade yi gis nga dan koo barrière lépp nga xam ne du dara dugg dara génn ah. lu mooy luñ soob waaye bu soobee yàlla yow sa këyit dana fa dugg mhm. dana jàll dan ci tamponné te dan ko jox nga dem sa yow yoon day loole kurus gaa fay jaar ndax mhm. wàllu baatin la oh. ak wàllu tegtal mhm. am na ci yoo xam ne bu dee daf la jafe fa innama al usri yusran mhm. innama al usri yusran fa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab bu ko defee loole moom mun la ci waxe ay tegtal <laughs> lam jafe woon dana la yomb ba la yéem loolu yëpp à distance la sëñ Cheikh ñun ñooy liggéey liggéey woo xam ne da ngay toog fa nga toog ñu toog fi ñu toog ñu gi ñaanal la yàlla nga gis ay changement say mbir ba dana la yéem loolee suñ borom rek ko ko mën ndax yàllaa gën a gaaw lépp loo gis waaw am na benn buur ba mu nee indil leen ma al arsh mooy to siège ba nga xam ni mhm. jigéen ji buur ba fa lay toog te muy yonente yàlla Suleymaan mhm. jinne ji ne ko mën naa ko indi léegi bala ngay jóg fa nga toog borom xam-xam ba fa newoon nga xam ni ñun la ñuy jëfandikoo lay jëfandikoo mhm. boog wala boog moom mhm. la mu daan jëfandikoo moom lañu ñu donn mhm. moo ne danaa la ko indil ci xef ak xippi ndeysaan ba mu xippee rek mu gis ko foofa te loolu tur yàlla la laaj nañu yonent bi nag ban tur yàlla def loolu mu ne ko annahu huwa ismul ahla azam mu ne mooy tur yàlla bu gën a mag ci tur yi kooke nag yàlla dénk nañu aajo bu la të buñ ci jaaree budda minhu an yaati kazalika ma aratta mu ne bu ñu amee sañ-sañ wax fala budda mooy par force loolu daf lay dikkal ca yàlla lañ ko wékk ak mm-hmm. yonente bi ndax yàlla moo wax mm-hmm. kataballaahu man yàlla bind na ba noppi la aghlibanna ni mm-hmm. man maay gañe ana mhm. man yàlla wa rasuli ak sama yonante kon nag képp ku ñëw ci sëñ wat mhm. yaay gañe kooku moom bu ci xel ñaar kon lool leer waaw lu leer jërëjëf acca euh, muslu doon na lu am solo ba tax na dinaa dellusiwaat ci kaaraange bi ngay def jaarale ko ci mbini beeg laalaake bi mhm. waaw wàllu kaaraange mhm. moo lay muccal waaye da nga mos ndax kaaraange ban lay jox mhm. daf lay ar ci fépp muy wàllu laalaake gi waaye ña la doon xeex ñoo lay mujj di xettali ndax carabinieri yi waajañ daan dàkk maa ngi koy fàttaliku dàkk ko ba mu daan ndeysaan ci tëli ci Italie nangu ay bagaasam mu photo won ma ko sama xol dafa tooy bis ba ma ko liggéeyale kaaraange mu ne ma sëñ bi ma yi nii lañ may rombe waaye yemuñ may nuyu sama dara seede wala dara bu waddee sa dañ koy for tegaat ko ci taabal ji waaw ña la daan noonoo di la xeex mhm. ñoo lay topp bëgg la ah. jubóole muus ak xaj ah. dan ne mënta nekk mhm. waaye aka mën a ne ndax suru yàlla la in nal dafa am ay suru yàlla xam dafay nooyal mhm. waaye day lewetal ay diggante ba day nooy nepp ni wëtteen gis nga wëtteen num nooyee waaye day nooy nepp ba dan la jaaxal ñaar ñu mënta nekk mën nañ leen boole. Hmm. ba nga xam ni ñaar ñi nimburoog soow. loolu wër kon mu ngi noonu pour <laughs> yàlla amut lu mu mënut du fekkee hmm. ngay sellal te suñu nangul la acca hmm. ñu jàll ci beneen ponk ñëwal ma ci ubbeeku bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def. ba koo jàkkaarloo rek da lay neex xam nga miine gi la ko defaral rek daaj dëpp la. dara du la yegg sa kaw. ndax ku ci jog mu explosé kooku kaaraange gu yéeme la. waaye wàllu kubeeku muy wàllu fatu. am na ci tur yàlla yàlla moo wax. Mm-hmm. laqad aataani mm-hmm. sab assamaniya fil kitaab mm-hmm. wàccee nañu yaayu téere gi ah. mooy ummul kitaab annahu huwa al fatiha mooy fatiha ndeyu téere ji laaj nañu yonente bi ban saara gana a foor ci alxuraan ñii di naan suuratul baqaraak ñii di naan suuratul mulkeek ñii di mu ne leen fatihatul kitaab la ah. tarka te faatuhatal kitaab moom ngay jullee ndax bu newul ci julli du wër kooku am na yoon wu ñu jaare mu am ay code buñ mhm. la tijjee ku lay tëjate ci àddina amul <laughs> te dama koo garanti boo teewul ay millions mhm. ma bàyyi sama kurus ci mu am tur yàlla woo xam ni fattah mhm. al fattah muy tur yàlla ba nga xam ni mooy tijji waaye dañ ciy booleeg razak mooy bi nga xam ni mooy mais duñ ci yem dañ lay toogloo ci alal bul al ghani nga xam ne dañuy fexe mhm. alal samp ci say mbir mhm. ñu jaare ko ci ay xam-xama ci sekkere ak ci mhm. sikkër sëñ Cheikh xanaa xamoo alal dañ koy transféré sañ Cheikh <sighs> cey alal waaw mën fa nga toog waaw nga gis ngay am alal di téye la yéem tur moo mën loole ndax malaaka ba nga xam ni mooy sedd wërsëg yi am na fu ñuy jaaree yoon ci wàllu sekk rek lasraar da lay xëpp ba da nga yéemu ci yàlla jinne yi joxe déedéet mënuñu malaaka gee dàq mën a joxe muy Mikaayil kookoo yor wërsëg jaamu yàlla yi macha allah <laughs> kon mu ngi noonu acca ñu dox wéyal euh, njëkkanteeg lii di waxtu wi dindi gaaf ak euh, lii di toj liggéey bëgg naa ñu waxtaane ko waaw wàllu gaaf xam nga léeg-léeg nga dugg si am jigéen mu am gaaf ba day fay say mbir wala boo yow nga am jafe-jafe wala gàllankoor moo tax mm-hmm. am sëy kenn du ci dugg te xooloo mbir yi ndax léeg-léeg faaw nga xool ko bu rawaxaan wala génnee tegtal buy mm-hmm. fànk sa diggante ak moom wala muccal la ci gaaf am na yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli jum joxe woon boo xam ne boo takkee am soxna ba noppi mm-hmm. bala ngeen di ànd sax ci wàllu sëy ci néeg wala ci lal da ngay julli rakk mu topp sa ginnaaw ñaan ñaan gi allahumma jannibni hmm. sheytaan wa hmm. jannibni sheytaan mimma hmm. razaqna waaye da ngay musul tam ci ndaw si ñaan allahumma yaa rabbi waxfasani min charraha wa charra ma fiha nga ñaan lépp loo xam ne lu bon la nekk ci ndaw si ak ànd ak yàlla muccal la ci bu boobaa loolu bu ngeen ànde ci sëy mhm. loolu du la dal waaye am na tamit mhm. lu jiitu loole ndax bala takk sëy mhm. war ngaa fagaru ndax am na ñoo xam ne bés bañ déggee ni meenan rek bés la musiba di am waaw am ñoo xam ne tam buñ demee ba ëmb ba war a indi doom bu dee doom jay ñëw dafa ëpp bopp baay ji baay ji du ko fekkee yooyu yëpp bëri nañ mi ci dëkk bi ba tàyyi nga dégg ku ne ah diw démb lañ ko rey pourtant barki démb la takk soxna si wala diw démb la def accident pourtant démb lañ ko doon maye Mhm. wala diw dee pourtant faatu na waaye tey la jabar ji am doom mhm. yooyu yëpp da ci am ay mbir yoo xam ni mhm. da nga cee war a fagaru ñaan lu yàlla yàlla muccal la ci yooyu am na ci ay kaaraange ak ay sekkere fa tabarakallahu aca euh, ñi nga xam ne dañoo bëgg a yëkkatiku am daraja loolu moom gisuma ko ko bañ <laughs> waaw ah. rafiu darajaat zul arsh kooku ma nga ca alxuraan am na nun lay ñaanalee danañ yéegal saw daraja xanaa xamoo sëñ Cheikh ah. turu yàlla am na nu ñuy doxee ci wàllu kurus ak baati nag dagg xawaatim ah, dañuy jël sam tur ah. commencé ko bunt bi ci suuf mu al muy bunt kursi yi ah. yóbbu la ba ci baytil ala nga xam ni mooy bunt bi nga xam ni mooy ci kaw mm-hmm. xam nga dafa am ay bunt ci mm-hmm. la wàllu lasraar mm-hmm. mën nga yéegal nit ki jële ko ci suuf yéegal ko ci kaw aj ko fa bolo ko fa ba pare samp ko fa. nga xam ni kenn dootu koy mën a wàcce. waaye noone ñu mënee def noona mhm. noonu lañ mënee def al aks maanaam jëlee nit ki ci kaw. wàcce ko ci suuf. loolu am na ci wàllu bunt yi. Mhm. bu ko defee nag loole bu fekkente ni nit ki daf la toroxal. Mhm. wala mu tooñ la. wala mu bëgg la yóbbi ay jafe-jafe kooku mën nga ko dégradé ndax tubaab bi xam na loolu mhm. bu ko defee yooyu yëpp ci wàllu safaan la mhm. waaye ñun li ñuy jëfandikoo muy wàllu yëkkati nit ubbi buntu daraja yi ubbi buntu wërsëg yi mhm. ubbi buntu xéwal yi am na ci aaya a wa rafaxnaahu makaanan aliyan am na ci aaya alxuraan baada auzu billahi min alshaytan rajim bismillahi rahmani rahim <laughs> wa laqad karramna bani aadam wa hamalnaahu fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min tayibaati wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila kooku yëpp ay secret yi ñu ci mën a liggéey ba nit ki yëkkati ko waaye koo xam ne da nga dem ba fay nga xam ne sax yow kenn xoolatu la am na loo xam ne aw man kaana mayitan mm-hmm. fa ahyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fihi nnaas mu ne moom ku dem ba fay wala boog bañ ne kii moom dee na lot mën na la taal kooku njàkk ngay wut ba wutee njàkk ji njox la baa di nga def ko ci nga sangoo ko toj njàkk li jeex na ku lay fayate amut te commerce ga dana daw hmm. dana naat mbir yi dana baax loolu lépp am na ci ay secret macha allah ma ci koo xam ne dafa bëgg mucc ci lekk gu bon waaw wàllu jàmbal hmm. koo xam ne moom da ay ñoo xam ne wóolu wóola dan lay jàmbal rek ndeysaan hmm. am na benn waaye borom boutique la damaa ñëw ba ci moom ne ko bàyyil la ngay def mu ne ma ah sëñ bi noo xamee loolu ndax day teg ataaya ji rek sa waay waa koñ gi yëpp bërëb ba fa la ñuy naanee ma ne ko bàyyil baat yaa ngi cay def ndax xam nañ li ci nekk da gis koo xam ne danga ñëw ndakaaru dugg si fi ñu lay xellil ngay xel di naan rek da ngay mujj sax am na beneen borom place bu mel ni moom dafa daan jënd añam dafa mujj di tëj palaasam di fa naane ataaya nga yaakaar ne loolu neen la. déedéet <laughs> xam na lu jara kon nag. dafa góor dafa war a mucc ci loolu. ndax. li lay def ñam joodo bari na waaw mën nga dem fee ñu def la ñam joodo mooy ñi ngay dégg mhm. dañoo tukki ban demee ba tey ñibbisuwuñ ak ñi ngay dégg ñu ngi ci loxo keneen mhm. mënalul leen dara ak koo xam ne da ngay aaye feneen dootoo dellu fa nga daan aaye ji loolu góor da cee war a mucc am nañ ci baat yoo xam ne buñ ko defee mhm. xëy suba teel bala ngaa lekk dara nga jiital ko sam biir lu la waaye jox du la jàpp macha allah ci wàllu ñam mu am loo xam ni tamit ay secret ka gàllaaj la ñam boo dugal sa loxo bu lu ci nekk lu bon mu toj bu ko defee donte poson la sax ndeysaan sëñ Touba am na lu mu ci baaxe mag ñi am na luñ ci baaxe mën nga koy lekk du mucc fenn loolu am na ci ay wàllu maanaam kaaraange kon mu ko waaw bidéew moom lekk ne sëñ Cheikh. Ah. da ngay gis kuy dang dangi bay bëgg a dee ah. maanaam xal maanaam euh, këriñ gu tooy. waaw dees koy boyal. day ah. saxaar waaye du gaaw a takk. Oh. da gis koo xam ni la may yëngu dana am njariñ. mais heure bi waroon na fee dépassé bu yàgg. ndax bidéew bee dëpp. Mm-hmm. ndax bidéew bu dëpp. bokk na ci li gën a garaaw lépp lu gis borom coono rek lay nekkee léeg la ñu xoolal nit mu ne mm-hmm. dem naa ci sëriñ sépp ñaanlu naa fépp mm-hmm. waaye da ngay gis ni vidéo ma dëpp ndax ñaan sax mm-hmm. du ko jàpp bu ko defee nag vidéo bu dëpp la ca gën a gaaw mooy wàllu dippërndi wàllu vidéo gi ci xalwa wala boog nga jox ko ay dog yoo xam ne da koy sikkar yàlla da koy jëlee ci lëndëm yóbbu ko yaxrujukum min azulumaati ila nuur yàlla da koy génnee ci lëndëm yooyu yóbbu ko ci leer gi mbiram mën a am na ci xeetu secret. macha allah mhm. ajay kii bëgg am xam-xam nag yan fu muy jaar bëgg a jëflanteeg moom xolom sedd guy. waaw xam nga am na ñaari xeet. danaa fi wax lu yéeme. am xam-xam am na lu lay liggéeyal. Mhm. jox la incha allah da ngay amee xam-xam. ci wàllu kiisi mhm. ci wàllu ñaan a distance ci wàllu tegtali. Mhm. waaye am na loo xam ne am xibaar la. comme nga nekk un agent. wala de renseignement. ga nga nekk koo xam ne da ngay liggéey ci gouvernement wala ci politique. wala nga nekk journaliste. yow bëggoo dara rëcc la. am na secret bu ñuy liggéey ci turu yàlla ah. alxabiiru. comme ni ngeen di defee émission. wallaay la xibaar ak lu mën a xew. yaa koy njëkk yëg ndax ay milliards. Mm-hmm. te day jaaxal ñu bari kii nu mm-hmm. amee information yi. Ah, mm-hmm. waaw am na ci turu yàlla. balaa kenn yëg. macha yëg. waaye am na secret boo xam ne da ngay xam mbootu nit ñëpp mhm. maanaam nit lu mu la doon nëbb du nëbb du mën a nëbb ci moom ndax yàlla kay feeñal ndax léeg la nga gis nit di la nëbb dara mhm. mu jékki-jékki far yaa ngi ànd nag moom loolee wat da nga gis ko mhm. <laughs> waaye du ci mën dara waaw loolu am na ci secret yi loolu suñu borom moo ko yor ndax lu nëbb rek yàllaa ko nëbb annahu huwal baatinu moom moo ki nëbb wa annahu huwa zaahir moom mooy ki feeñ ñaari turam yooyu rek am na ñoo xam mën nga ci dund ci baatin di xam mbiru nit ñi am ñoom mën nga dund ci zaahir <laughs> nit ñi loolu yëpp ci secret ci loolu am na solo mhm. jërëjëf docteur Mouhamadou ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leer li am solo mhm. aja dama ñëw ci nga xam ne bëgg nañu mucc ci lu bokk ci njaaloo waaye tux ba ci naan sàngara waaw naa ko fi baaxee ndax njaaloo du lu yàlla bëgg mhm. boo demoon sax ba Tuubaa ci jumaa ja nga fexe woon bu doon jamono ji xam nga karol nañ li ci bari mhm. waaye nga am suuf rek tuuti as suuf ci wetu jumaa ji mhm. doonte damaa dama Tuuba waaye tiwaawoon mhm. ju bërëb yu mag yu sell yi nga am doom buy njaaloo wala buy sàcc wala buy tux wala buy naan jëlal ci suuf sa nga comp nga sànni ci ndox nga naan ca ndox ma yéene ci la nga bëgg jumaa dafa sell nga ñaan yàlla sell yàlla dan la sellal waaye am na turu yàlla yoo xam ne nag koy liggéey day xam nag moom am na wàllu ñaanu kurus yoo xam lay wax jox la ay tegtal loo xam ne boo ko defee bu soobee yàlla. Mhm. njaaloo dootoo ko defati. mooy dootoo ko defati. waaw tox dootoo ko defati. macha allah naan dootoo ko defati mandi dootoo ko defati. benn waaye dañ ko laaj. waaw da ngay bàyyi naan wala doo bàyyi naan mu ne sëñ bi naan dafa neex lool. mën na koy bàyyi moo ne ko ci téléphone nag sëñ bi. Uh-huh. àjjana uh-huh. ak naan lu gën a neex mu ne maa àjjana kat yéemut ak dara. Uh-huh. ma ne ko ana maam Adama fa la ne woon bàyyi na àjjana wala bàyyiwu bàyyi na donte ba muy bàyyi dafa ngoy ci garab gi ne du génn waaye génn na fa mm-hmm. am na ñaan woo xam ne wa taraku jannatin kam taraku aadama wa mm-hmm. taraku alcool mm-hmm. sàngara lépp danga ah. ko bàyyi na aadama bàyyi woon àjjana ah. <laughs> waaw loolu lu leer lu mu neex neex neex mhm. danga ko bàyyi loolu am na ci sekkere yi macha allah ci tàngal dongu lañ koy mocc nag waaw dañuy jënd paquetu tàngal gi mocc ko ne la am demal màcc te doo dool génn sam xel sa xel tarkal la loolu am na macha allah <laughs> jëf kon loolu am na solo acca ñëwal ma ci mhm. euh, fan nañu war a duggaat sax gën a yaatal ci wàllum pexeb noonu bëgg naa ñu waxtaan ci. waaw mucc ci pexe noonu. Mhm. wala ay noonu. wala bañ. Mhm. kooku am na secret woo xam ni moom. boo ko defee. bari na ci ay yoon nag. am na woo xam ne saw neen da sa say noon da nga leen di soppi ab soppe mu am loo xam ni qul lan yusiibanaa mhm. illaa maa kataba allahu lanaa mawlaana wala allah falyatawakkal mutawakkiluuna dara du agsi ci yow ci wàllu noona ki seen pexe lu mooy lu bàyyi ko fa yàlla ndax laa yu daarrihim bi ahadin illa bi iznillah ah. mënunti la lor ci dara mm-hmm. lu mooy yàlla ànd ci te bu boobaa yàlla du ci ànd ndax jiitu nga leen ci mm-hmm. aw noonu da nga ko ciy jiitu mm-hmm. bu ko defee nag ku la njëkk ca néeg man lay wax la ca ne la ca biir bu ko defee nag loole mun da nga ciy mucc mu am yeneen ay baata ki ay maanaam secret ki tegtal am na loo xam ne sëñ Cheikh boo ko defoon tegtal rek da nga gis ñi la dawoon fàq la ñëpp dañuy wëññeeku te dañ la sopp te dañ la ba dañ la jaaxal ni waa ji ma ne woon man daal mhm. sëñ bi ba nga ma defalee mbir mi ñëma gëj a gis ay at ñooy ñëwaat ci kër man daal damaa yéem ñoo xam ne ñii dañ maa bàyyi woon ba mhm. ne ñii mhm. fa leen di gisati ci àddina waaw ndax nit day am loo xam dafay bokk ci yow te dafa war a teew ci yow ñu yàq ko mu dem ah, bu dee dellu si waat na da nga koy gisaat loolu dafay amaat macha allah yooyu yëpp euh, ay secret la bari na ci lu bari ñu ma koy jàmbat mu bokk ci loxo bu bën waaw wàllu loxo bu bënn moom la mm. du toog ci loxol borom te lu mu am day dem xam nga loolu moom dut lu baax mm-hmm. ñu baree ngi dang dang di liggéey waaye la ñuy am duñ xam fu mu jaar lu wër ko defee loolu koy yóbbe mm-hmm. waaye am na cee baat yoo xam ne boo ko jàngee tufli mm-hmm. sam loxo waaw moom day dakk mu am ay secret yu ñu lay defal ci wàllu ñaan wala ci wàllu kurus wala boog ñu jox la baat yi bu ko defee nga jëfandikoo ko wala sangat ah. wala boog mu jox la maanaam li ñuy liggéey <laughs> nga def ko jaaro ah. def sa loxo kooku moom jeex na ci yow mhm. ci wàllu loxo bi bën waaye di nga téye mhm. ba dan nga am yëkkatiku ak maxaama mhm. boo doon business dana dox ah. boo doon jaay loo jaay mu jar boo doon yëngu ci indi conteneur yi day ñëw <laughs> booy dem ci douane yi dafay yomb booy bunt yi day tijjeeku maanaam jaaro jooju moom daj dëpp la ba bariwut sax lu ñu koy waxtaane <laughs> waaw loolu am na ci wàllu loxo am na solo am na loo xam ne dañ lay jox rek nga raxasoo satal la lan lay wax ah. jox la sekkere wala baa di nga raxasoo ko ah. tàkkaliku nga ak loxo bu bën loolu am na macha allah aca ñu ñëw ci feebar feebar yi tawat yi bëri lu ci xam mu ngi ci nit ñi lu ci mel ni bët buy metti nopp buy metti tànk bëñ yooyu yëpp bëgg naa ñu waxtaane ko ba ci digg lay metti waaw mboolem mettit yi nekk ci doomu aadama waaw dong ñoo koy fay fajee à distance mhm. am na ñoo xam ne seen tànk yi dafa néewoon ba mënuñoo dem mhm. am ñoo xam ne seen benn wet wala loxo dafa paralysé woon mhm. am na benn waaye ba mu ma wooyee di ma wax beneen aajo dama ko ne sëñ bi xanaa la nga fàtte ndeysaan ma ne déet ma ne ko feebar ba ma wax nga Uh-huh. man kay ba nga ko fàttali laa xam ni yaa ko dindi ci man uh-huh. sëriñ bu ne jaar naa ci ndax moom sàndarma la woon uh-huh. mu jóge fi dem États-Unis ma ngi may dégg benn wet gi paralysé jàpp tànk bi ak genn wàll ci aw rek waaye bañ jaar ak moom fan jaar ak moom ci ay tegtal macha allah sant na yàlla fàtt na loolu ba ma ngay wax yeneen am solo loolu am na ak ka nga xam ni dafa nekkoon ci centre ndigg gi di bloqué metti tubaab bi rajo ko xool gisum da ndox ko tegtal waaye yàlla jàmmal na <laughs> ak ñu bari ñoo xam ne dañoo feebaroon ndeysaan waa ja nekk Maroc mhm. ne waa ji lam témoigné du dara mhm. man moom ay tànk yu néew yu la wax man sama yaram bi biir bi ak tànk bopp bi kanam gi yëpp dafa néew ba sama soxna xàmmeetum waaye ba ma looyee sëñ bi nga jox ma tegtal loolu dafa seey ba daf ma yëm ci ñaari fan mhm. bu ko defee moom bu bu ma mënoon damay toog ak yow ci émission bi wax te bu ngeen dugalee ma ngi may suivre ndeysaan te ku baax la te am na audio sax yu ma bàyyee damay ñëwaat ci moom waaw sàndiwaale ko nuyu ci yow tarkal la <laughs> jërëjëf aja ma ci gàllaaju sàcc waaw gàllaaju sàcc moom bu dee da nga jënd téléphone sëñ Cheikh mhm. ndax sama turandoo moom nee na moom téléphone am nee nañ ko tungeet ci kaaraat <laughs> bi boo jëndatee alal ju bees turandoo <laughs> na nga ci wax yaa xafiisu mhm. juróom-ñaari yoon nga tugg ko ci bu soobee yàlla nga ñaan yàlla kii mhm. fu mu dugg na dellu man sama téléphone dama daan jàpp bàyyi ko ci biti waaye heure bu nit da koy for dama sëñ bi am. waaw waaw bii ma nii. sama tukki gi ci taxi laa ko bàyyi. <laughs> macha allah réew <laughs> fa ma tukkee. waaye si waat na mu ngi nii. ko defee am na alal ju bees am na noo koy amee. am na mhm. lu ko dootoo koy perte. mu loo xam ne boo ko defee ci kër ab sàcc du ca génnee. Mhm. waaw bu ca tàbbee du ca génne mu am loo xam ne sàcc sax xelam du fa jublu mhm. loolu am na ci wàllu ñaan yi kooku moom ci secret jaaro bi ñu daan liggéey turu yàlla woowule am na nun koy liggéey ko ci kër mhm. kër ga du màbb du du lakk du tàkk sàcc du ca mhm. bu ko defee mu loo xam ne moom laal taxaw la <laughs> ba moom wàllu sàcc moom damay digleel ndax yàlla moo wax wala taaxusuhim raafatan bu leen bul am ci ñoom war rahma bul am ci ñoom yërmande ndax dañoo war a gisee ay mhm. loxo kon nag bu yemee rek ci ñu ci jël taxaw wala ci ñu jël loru wala ñu fanaan bu bërsët wala ñu gëlëm yooyu yëpp am na ci xeetu ñaanu sàcc yi wala bokk ku la jëlal waaw am na tegtal boo xam ne boo ko defee mu dellu si ko loolu am na wala lu la réer wala ñu yóbbul la mu feeñ loolu lépp am na si ay ñaan tarkal la aja faj sa aajo nag waaw wàllu faj aajo nga am soxla ci nit mhm. wala nga war a koo seeti wala kilifa wala nga bëgg ci moom xaalis am na tegtal wala baat wala secret yu ñu lay jox. macha allah boo doxee dem ci moom dana yëkkati alal wu takk dana la jox. du ko mhm. wàññi dara da koy yokk waaye yow da nga ci bëgg. loolu am na ndax bëri na ñuy am yaakaar ci nit ñu dem yaakaar wa tas. Mhm. wala boog ñu dem ci moom duñ ko fa fekk. Mhm. ndax jog sax dem ci nit pour fekk ko fa léegi gàllankoor day am. boo defee tegtal ba dafay yomb. <laughs> ndax waajaa ma naan sëñ bi tegtal ba nga ma jox est ce que mat na 300. waaye ba ma demee ci waa ji. faj na sama aajo ba ay aajo jàmbur yu ma àndaale woon saafaral na leen ko ca dëkk ba. waaw waaw fa tabaarakallaahu loolu sant yàlla. mu ngi doon mhm. acca euh, ci ku bëgg falu wàllu nguur. waaw wàllu falu dafa ah. bëri ay xeet. <laughs> Mhm. ku musul falu wala ku bëgg a remplacer. xam nga mhm. jamono ji am na koo xam ne daa bëgg a remplacer. <laughs> bu dee da nga bëgg a remplacer am na turu yalla boo xam ni. Ah. am na nun koy liggéeyee. tarkalla buñ da ko defaralee bu soobee yàlla buy waaj a jóg yaa fay toog. tarkalla kenn mënu ci dara. macha allah ndeysaan laay wax bëggoon na ko fi ay jamono. doom ji boo xeebee la yàlla def sa réew. nga jéggaane ji moom. da ngay mhm. rek. ndax mbir yaa ngi fii. Sénégal gii. waaw ku yàlla teral la. Mhm. te ñu baax a ngi fi ñu yàlla baaxee. macha allah bu ko defee buñ ca jaaree fañ war a jaar. Mhm. dañ ci am ndam. waaw waaye wootewuñ kenn nag. dax ndax mi liñ ci bëgg. mooy ka ci réew mi yàlla def ko waaye gis naa nag bâtisseur bu mag waaw mooy toog ci réew mi te dana liggéey réew mi bu soobee yàlla ablaat nga gis dana am kaaraange te dana yokku hmm. ci wàllu koom macha allah loolu moom mën naa ko fi baax falu hmm. am na loo xam ne da ngay bëgg mbooloo hmm. jamono ji politique lan nekk waaw am na loo xam ne buñ ko liggéeyee ci sekkere alxuraan la yow ma yunaadil munaadi min makaanin qaribin dan la wuyu si ndax kay woote ba wootee fa mu woote dan koo wuyu si bu ko defee mu am yoo xam ni tee mbooloo la rabbana innaka jaami'un naasi li yawmin laa rayba fii inna allaha laa yu'liful mi'aad yàlla mooy kii dajale mbooloo am na nunuy liggéey ay secret la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyaamati dana leen boole ba yawmal qiyaam du ngeen taaxaliko mu am ci ay yoon yu ñuy liggéey ak ay baat ak ay ci wàllu kurus gi da nga téye mbooloo waaye digal ñu def looloo ci des tax hmm. bari na ñoo xam ni hmm. dañuy am électeur bu ñu hmm. demee ñu war leen ca bureau ya kooku moom buñ la ko defal le ña nga diggante woon dan la woteel par force neex na xari kooku nag lu jarawut la ndax man ngay am mbooloo bu bari waaye gars yi dañ na ah lekk leen xaalis bu ñu demee ca carte xam nañ ku ñuy sàndil suñ carte waaye kooku de buñ la ko defaralee bu soobee yàlla yow la ñuy sàndil carte gi ndax innal ahda mas'ula ndax yàlla moo ne dañ koy laaj. <laughs> Mhm. waaye buñ ko defee day. Mhm. du ma wax baat bi nag. Mhm. naa ko denc rek. waaw <laughs> ma noppi ko. <laughs> am na solo ci politique la ñuy desandi ginnaaw ba ñu sukkandikoo ci say kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko. ki nga bëgg mu remplacer Macky Sall wax nga ko sa biir wax moom lañ bëgg xam kan la du fekkee it ñemewoo ko wax mu leer nga junj ko. ba ah, gaa yi xam ne kii. kii nga gis déet damaa wax. waxuma man sama bëgg ba dama ne. Macky Sall dafa am ku mu bëgg mu remplacer ko. Mhm. loolu kay sénégalais yi. kan nga gis mën na koo war a remplacer. ah moom ki mu bëgg. Mhm. Amadou Ba moo ko demal ci partem mhm. APR. loolu moom la ñu tabb. <laughs> kay loolu leer na ci ñëpp. ndax mën naa doon cinquième président du ah, bu jaaree fa mu war a jaar. <laughs> bu jaaree fa mu war a jaar. teggiwu ko. ah mën na koy doon waaye nag. dama la ne damaa gisal Sénégal. bâtisseur bu mag. koo xam ne sa waay bu ñëwee. réew mi dana am koom te dana ko liggéey. te ku sawar la itam. te mhm. dut ku teyal te ku ñëpp bëgg lay doon waaye nag senegal nag naa la xamal leen mhm. yàlla daf ñoo yàgg defal mbaax waaw mbaax gi mooy lan mhm. mooy yàlla fañ ko foogeew rek waaw laf ñuy génnee bu ko defee wa man yattaqillah yarzuquhu min haysu laa yahtasib sénégalais yi dëgg la waaw dañuy wax ni ay jullit lañ. Ah. waaye am na ñu ragal yàlla. Ah. te yàlla dana leen dénk koo xam ni. fu génne fu ah. ko foogewut la. te Amadou Ba. ñëpp dan koo fooge. waaw <laughs> waaye li ma wax na. junj cee bokk ci ñi ko fooge da cee bokk wala. déet dama ne. dañu am ñu ko foogee. ci réew mi waaw ñun politique wuñ waaw te ñu ni farewuñ fenn itam mhm. te bu ñuy wax ci xam-xam la ñuy waxee tarkal la aqulaay taala macha allah bu ko defee nag loolu na leer am na solo politique wuñu féetewuñu fenn itam doguma la lan fi nekk macha allah doguma ci xam-xam boobu ngay waxee dina ma neex ma laaj la li ma la bëgg a laaj mhm. euh, kii di Karim Wade mhm. bëgg naa xam lan nga ma ca mën a wax ndax gis nga mu doon cinquième président non Karim Wade moom bu dee dañuy waxante dëgg gisuma mu nekk cinquième président Ah. Amadou Ba nga gis. Amadou Ba tam. Ah. mënuma cee addu. Ah. fi mu toll nii li waral loole mooy. moom dafa am mbóot. am parti. Mhm. te nekk biir réew mi. Karim boo gisee ma am ci wax booba. Mhm. dama amoon gëstu ci mbiram. waaw Ba nag amaguma gëstu ci mbiram. te lu ma gëstu du ma ci mën a xuus. Mhm. te maanu dafay waral boo gëstuut rek. nga cee wax. waaye Karim moom. damaa gis ni moom. macha allah waaw ñu ngi ñu ngi naan exister tout sax waaye Pastef ndax mën na am dara ci élection yi wala du ci am dara. non kooku moom mënatuñ cee wax ndax duñ demee tur woowu. xam nga ni demeewul. Sonko bi ma remplacé ko. dindi naa Pastef wax ba ma tam nee la gisuma mu nekk cinquième président. tarkal la waaw kon gis nga daal <laughs> Pastef amul dara.